li ñu mën a jàpp mooy euh, dañu teg benn dispositif ba nga xam ne fii ci kam Massalikul Jinaan depuis 3 ans 4 ans dañuy dugal ci suuf ay lépp li nga xam ne câblage la pour effectivement faire tout les li nga xam ne lépp mooy problème mu euh, li ma gis ci wàllu jumaa ji mooy julli yi nga xam ne dañ daan julli caméraman yi nekk seen kanam di def ay zoom ñi di waxanteeg tool kooku yi nga xam ne des fois dafa doon juumloo sax euh, li nga xam ne moom mooy imam beeg des comme ça donc lu ñu gis loolu bu ñu gisee loolu musul nekk la nga xam ne euh, dama ko mus a wax ni que mën nañ ko régler bi ñu ko réglé mooy nga xam ne robotisé la def ko fépp fi nga xam ne dafa nekk ci jumaa ji plus de 12 caméra nga xam ne plus de 50 points mais 12 caméra la ñu bi nga xam ne gars yi dañu am réalisation boo xam ne lépp li nga xam ne la di nga ko mës ci biir grande salle bi nga ko bon xam dañ ko monté bi nga xam ne ñu ñoom ñëpp mën nañu réaliser jox ku nekk signal bi nga xam ne moom nga soxla doo ci am benn problème te yëpp HD la mais ko ànd nañ ceeg ñi nga xam ne ñoom ñooy waa RTS ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw am si en appui bi nga xam ne pour ñu defar une réalisation propre pour ñëpp ñëpp and ci bu def liggéey bi nga xam ne ñëpp ko ba dans tous les cas tout ce qu'on est en train de faire lépp lu ñuy def nii pour ñun la donc je pense que je connais le monde toutes les chaînes bu baax la bu sa am ak c'est pour que ñëpp jàpp ci ñu def li nga xam ne mooy audio vidéo li nga xam ne dañ ko mën a defar bu manière très responsable lépp li nga xam ne tamit mooy ñi nga xam ne ñooy def site internet yi leen mettre à disposition bi nga xam ne mooy benn adresse boo xam ne ku ci nekk mën nga ko loolu en direct nga am euh, am euh, julli gi di def sa commentaire di def loo ne mais li wër jumaa yëpp ku nekk mën naa def li nga xam ne mooy sa plateau wane bés bi parce que bés bi bésu Sëñ donc loolu moo am solo